nekk na situation bu métti lool waaye pexe amut. maa ngi koy dund moom parce que maa ngi yor sama kër maa ngi yor sama njaboot gis nga sama toogaay bi maa ngi yor sama njaboot waaw nañ dolli sutura rek yàlla yàlla nañu yàlla dolli sutura loolu laa ci wax waaw sutura daal la jërë ñaan. lan moo mën a waral pénurie bile nekk ab laaj bi nga xamante ni. bile gérant du dépôt de gaz àdduna ci. gaz en tant que le am na. parce que nit ñu bëri dañu yaakaar ne gaz daa manqué Sénégal mais gaz manqué wul nous sommes confrontés à problème de livraison livraison moom moo amul euh, li waral aussi ñu am problème mu livraison boobu mooy société yi ku ci nekk amoo droit sol sa butéelu moromam ku ci nekk sa butéel nga war a sol léegi nag dans le marché comme dañu jël butéel yëpp mooy les charretiers bu ñu demee sur le terrain jaay point de vente yi dañu ramasser butéel yëpp indi ko bu ñu koy indee camion bi bu ñëw ñu jox ko ko une fois à l'usine dañuy trier butéel yi nga xam ne moom lañ war a moom lañ moom ñu sol ko yi nga xam ne moomuñ ko ñu jël ko dem échanger ci ak société bi nga xam ne moom moo ko moom mais maintenant problème échange boobu moom moo indi problème bi yépp. ak lépp lu ko mënti waral tamit ñoom muy père de famille détaillant ak grossiste ñu ngi ñaan nguur gi mu def ci li war ba rek situation bi dellu siwaat comme ni mu meloon. soxna Ramata Sarr cant ak gërëm ñeen na ko mbokk yi wax ci li nga xam moo jëm ci gaz boobee wax nañu ne dafa ñàkk lan moo ko waral yenn ci ñi nga xam ne ñoom ñooy yor ci lu jëm ñuy duppee maanaam fa ñuy daal di jafe gaz yi mu nekk nag loo xamante ne jamono ji ñoom yëkkati nañu seen kàddu lan moo ko waral ñoom ñu jàpp ne jot na tembe ngir gouvernement bu Sénégal jàppale leen ndax lu mooy loolee daañu dem kon nekk ci ay jafe-jafe ndax loole la ñu yaakaar pour daal di koy dugal ci gafaka ngir mën koo dundalee njaboot ja teewlu ci kenn ci ñoom boo xamante ne dafa daal di wax sous l'anonymat ci micro Ramata Sarr ba tey ak ñaañaka voilà conséquences yi nga xamante ne ni rupture bi mën na ko am wax naa ko tantôt jéem naa ko wax ci français mooy euh, ñun bu ñu liggéeyul fas yaa ngi lekk yaa ngi fay courant yaa ngi fay ndox yaa ngi fay sa personnel bu yàggee nga tëj parce que charge yooyu daal diis ci yow doo ko attan parce que chaque jour que jëfee li ma la lim noonu il faut nga def ko te amoo gaz jaayoo bu yàggee nga tëj vraiment loolu bu amee coono la parce que ay nit ñoo ci nekk yor ay père de famille euh, di ci sutura du sutura seen njaboot bu tëjee ñooñu lan la ñu dem chômage et état bi mu ngi wax ne chômage bi il faut ñu xool ci solution bon lii solution la bu ñu war a régler le plus rapidement possible mu ngoog jaajëfal ko bu baax a baax moom euh, kon euh, soxna Ramata Sarr ak euh, Ndiagne Kam yi ñu defal jàngat boobee ni ki tey ci suba mboo ki wax ci conseil constitutionnel junju naa leen ko ci boppu xibaar yi ñu ngay wëyal di xool ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk foofee ay candidat fas yéene da gani kaddu askan wi ndax parrainage bi nga xamante ne yóbbu nañ ko ndax baax na am déet ndax mat na am déet tey jii ci suba gannaaw ba ñu saytoo ay candidat yu bëri ka ca nga xamante ne moom moo njëkk a jàll mooy Karim Meïssa Wade di candidat bu coalition Karim 2024 ñu gën koo xam ci euh, li nga xam mooy parti a sénégalais gannaaw nag ba nga xamante ni dafa tànnoon ngir def parrainage parlementaire maanaam dem ca pencum ndaw réew ma député ya daal di koy parrainé euh, tey jii loolee la nga xam moom mooy mandataire am daal di xëy xamal ne loolee mbett la euh, ci ñoom ñu daal di dox jëm ci li nga xam moom mooy jongante yi tuwaatum 2024 Maguette Sy dañu tànnoon parrainage par les députés maanaam parrainage parlementaire ba ñu ñëwee équipe informatique bi jël na sunu clé dugal ko ci système bi ñu contrôler fukki député ak ñett ya nga xam ni moom la ñu présenté lépp lu ñu laajoon si wàllu information système bi wax na ni c'est valide maanaam dara loo xam ne lii lu ñu war a rejeté amu ci woon donc si procès verbal bi jox nañ ñu suñ procès verbal wax nañ ni liste parrain ou candidat Karim Meïssa Wade elle est validée kon boog mu ngi noonu euh, foofu la ñu toll pour le moment Maguette si moom ngeen doon teewlay kàddum noonee kon jàppale ne parrainage bu Karim Meïssa Wade ki fi nekk njiitu wala doomu njiitu réew ba fi nekkoon di Abdoulaye wadd kon daal dinay validé foofee kon ca li nga xam moom mooy conseil constitutionnel gannaaw ba ñu ko saytoo ni ki tey gannaaw Karim Wade keneen koo xamante ne jamono ji am naa lënc lënc ci lu jëm ci parrainage boobee muy docteur Babacar Diop bu FDS les Guelwaar mandataire am nee na ba ñu saytoo la nga xam moom mooy parrainage am ak ay clé USB yam fa daal di indi maanaam lu jëm ci euh, lii mbir électronique ba dañoo gis ne am na lu toll ci ñaar fukk ak ñaar ak juróom euh, téeméer ak juróom ay parrainage yoo xamante ne euh, dañ ko daal di valider maanaam jàpp ne yooyee baax na ci ñoom nag am na maanaam fukk ak juróom fukk ak ñett ay junni ak téeméer lu toftal yoo xamante ne nee nañ ko jamono ji faw mu wuti ko ndax ay doublon la. docteur Babacar Diop mandataire am ci euh, li nga xam ne mooy conseil constitutionnel di ki tey jëlee mu ngi wuyoo ci turu Mamadou Bodian ci micro biram xari ndaw waaw résultat yi xaw nañoo bett ndaxte ci fichier bi nga xamante ne moom la ñu jébbal commission bi ñu ngi ci am lu toll ak cinquante six mille sept cent ak lu ci tegu euh, pare bi ñu bi ñu defee analyse des résultat ñu ne ñu ci cinquante six mille sept cent yooyu am na vingt deux mille cinq cent quarante yoo xamante ne nekkul ci fichier général des élections mu am treize mille et poussière yoo xamante ne doublon externe la mais amul doublon interne ndaxte am na liggéey bu mucc ay boo xamante ne def nañ ko loolu xaw ñoo jaaxal ndaxte boo jëlee la ville de Thiès ou la région de Thiès li ñu jébbal commission bi toll na ci presque vingt mille et poussière mais ci vingt mille et poussière yooyu ñu ne ñu seulement moom la ñu validé donc finalement au total on se retrouve avec euh, avec euh, vingt mille huit cent parrains yoo xamante ne moom la ñu validé loolu nekk mbetteel mbetteel bu rëy ci ñun ndaxte sunu militants yi am na liggéey bu mucc ay bu ñu def rawatina ñi nga xamante ne ñoom ñooy cees te Thiès nekk le fief de notre président Babacar Diop mu nekk aussi le maire liggéey boobu ñun daf ñuy jaaxal ñu ne ñu presque ci vingt vingt mille et poussières boobu seulement 9000 la ñu validé. ba tey ci wàllum xibaar jàppale ne kon tey jii ba ca ngoon daañu wéy foofee ca conseil constitutionnel di leen toppal lépp loo xamante ne xibaar la fa jamono ji ñu ngay xaarandi ku ci mel ni Aly Ngouille Ndiaye ñu saytu li nga xamante ne moom moo jëm ci ay parrainage am ak ñeneen ñoo xamante ne ay candidat lañ bëgg a daagaani kaddu askan wi atum 2024 gannaaw loole ba tey bokk ci wàllum xibaar ndorteelu at bi neex na lool ci maire yi nekk ci biir réew bu Sénégal ndax kuréel bi nga xamante ne moom moo boole daanaka maire yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk wala boog ci ëpp eh, ci biir réew bu Sénégal di association des maires du Sénégal ñoom nee nañu njiit réew bu Sénégal Macky Sall jox na leen ay privilèges yu bëri jamono ji gannaaw ba ñu waxtaanee ak ñoom eh, ayu bés bi ñu génn muy nag ay privilèges yu am solo yoo xamante ne ñoom rafetlu nañu ko bu baax a baax bu ñu sukkandikoo ci njiitalu boobu lépp kuréel di association des maires du Sénégal Oumar Ba ci micro Mamou Milay fës maanaam jàppale ba nga xamante ne nguur gi moom lay jàppale collectivité territoriale mu naan les fonds d'appui à la décentralisation soo ko nattee diggante 2012 ba léegi dafa yokk de cent 120 pour cent loolu mooy xaalis ba nga xam ne dafa jóge ci nguur gi dong dem ci collectivité territoriale muy un résultat important loolu nag bokkewul ak réalisation yi nga xamante ni nguur gi mu ngi koy def à travers des agences mu jëm ci ndox dem ci électricité dem ci éducation dem ci yoon dem ci santé dem ci njàngale mi foo ko xayma rek dëkk yi am na la nga xamante ni coppite yu am solo am nañu foofu mu rax ci dolli dañuy wax communalisation euh, intégrale bu njëkk dañ doon wax communauté rurale wax maire dañu bëri sax dañuy cosaanoo ci communauté rural yi mais gëdd bi ñu jox communauté rural ak ni muy fonctionner ñoom loolu du leen intéressé. moom ngeen doon teewlu ay kàddum noonu moom mooy njiitalu association des maires du Sénégal gannaaw mu yëkkati ay kàddu ya nga xamante ne ñoom la ñu jàpp ak gouvernement bu Sénégal rawatina. ci Sall ci boppam ngir daal di euh, doon jox ay privilèges yu yees ñi nga xamante ne. ñoom ñooy maire yi nekk ci biir réew bu Sénégal jamono jooje boo demee ca Louga benn dëkk bu ñu duppee Madayana daanaka sori na ak ville bu Louga fanweer ak juróom-ñaari kilomètres foofu nag askan woo fa nekk comme ni ngeen koy gisee nii le maire ba futu la ñuy daal di def takk ay brassard yu xonq la ko waral nee na ñoom ci seen bopp dafa mel ni dekkuñu ci biir réew bu Sénégal gannaaw ba nga xamante ñoom nee nañu lu jëm ci courant amuñu ko ndox bu doy naka noone te sell am na tamit ay jafe-jafe yu wér-gu-yaram yoo xamante ne maanaam bërëb ya ñu fay daal di fajoo naka noone tamit pour nga jot dëkk ba sax jafe-jafe la bu métti ndax amuñu yoon bu uh, mucc ayib loolu nag nekk ay njàmbat yoo xamante ne teg nañu ko ñu tawlu kenn ci ñoom wala réaction askan woo fay daal di yeewoo ci micro Babacar Diop dañoo manqué lépp laa la mën a wax courant ma ngi suñu diggante ak jokkul bu village bu ñuy wax jokkul 1500 mètres depuis ba 10 euh, ans mën ñu fexe ba jot ci courant bi kooku xam nga ni kon metti na am nañu jafe-jafe yu metti lool amuñu yoon ku ne gis na yoon bi ni muy doxee raaraan bi tabarka oto bu fi jaar paan mënuñu sax am raaraan mënuñu sax am oto bu fi ñëw. ñi fi taxaw ñëpp jàng nañu ba am entrée en sixième mais mënuñu continuer parce que amuñu collège bu ñu dem mënoo xëyee fii dem jàngi ji lew na 9 kilomètres. kenn mënul xëy xëyee fii di jàngi bu fekkoon sax yoon bu baax dafa am mais yoon bi yéen fi ngeen jaar gisal ngeen ko seen bopp dañ noo fàtte ñun ñun ci suñu bopp autorités yi ñoo ñu fàtte ñun dañuy laaj sax est-ce que ñun ci réew mi la ñu bokk est-ce que ñun ci commune bi la ñu bokk loolu moo may may ma dellu si waat ci problème courant bi parce que man en personne waxtaan naa si ak ku ciy liggéey li ma wax mooy seen courant bi mu génne yàgg na mais détourné nañ ko jox nañ ko beneen village ci loolu nag la ñu ni dafa doy ay électeurs ñoo fi nekk parce que Madda li fi yeewoo ñi nga xam ne ñoo fi nekk yor seen ay carte c'est plus de 2000 personnes tey na kenn dootuñu nax suñu carte moom ku ñu xamul xamuñu la ku ñu faalewul faalewuñu la ki ñu yëg moom la ñu jox suñu ay carte courant la ñu bëgg mu ngoog askan wa nekk foofee ca diwaan bu Madayana nekk ca Louga gis ngeen kàddu yoo nga xamante yëkkati nañu ko woon nañu ko ñi nga xamante ñoom ñooy autorités yi rawatina gouvernement bu Sénégal ngir mu ñëw daal di leen di jàppandi maanaam wàllu si leen ci li nga xam moom mooy seenim njàmbat mbokk yi ba tey ci wàllum xibaar dañuy dem ci wàllu tàggat yaram tàmbali ko nag dem foofee ca diwaan bu njum di dëkk ba nga xam moom la ñu xamee Cheikh Oumar Anne nekk jamono ji maire euh, maanaam nekk maire ci boobu lépp diwaan waaye tamit nekk ki nga xam ne moom moo yor wàllum njàng bi ak njàngale bi ci biir réew bu Sénégal final lañ fa daal di jongante ci lu jëm nag ci nawetaan boobu lépp diwaan mu nekk nag euh, loo xamante ne moom teewoon na fa moom Cheikh Oumar Anne yëkkati fa ay kaddu jaajëfal ndaw yi naka noonu tamit daal di leen di dimbali ci lu jëm ci wàllu tàggat yaram Cheikh Oumar Anne naal bu neex la euh, may sant euh, gouverneur bi nga xam ne tey en tank que euh, patron exécutif régional di représentant président ci région bi mu ñëw fekkee événement bi may sant autorité yi fi nekk yëpp nga xam ne dañoo ñëw tey participer en tant qu'autorité régionale may euh, kontaan aussi ci présence su euh, maire euh, Ross Béthio nga xam ne équipe équipe bu Ross Béthio mooy def final bi moom ak équipe bu commune Dagana le maire de Dagana woo na ma démb di ma di ma di ma féliciter di ma remercier sama xarit la te région bi yëpp benn la en tout cas tey li ñuy jàpp fii mooy euh, final bi euh, jeunesse su jeunesse su région de Saint-Louis yëpp dinañ ci gis seen bopp. Euh, euh, finalu jeunesse bi la ak mouvement associatif ñuy ñaan rek mu jëm kanam esprit bi mu am naal bu neex la euh, may sant Cheikh Oumar moom ngeen doon teewlu ay kàddu noonu mbokk ba tey ci wàllu tàggat yaram équipe nationale bu Sénégal xam ngeen ne dañoo war a def jongante xarito juróom ñett fan ci weer bi ñu nekk maanaam de atum 2024 ñu war ko amee foofee ca stade Abdoulaye Wade bu Diamniadio laata muy démarré kon ñu dox ci li nga xam moom mooy Ligue 1 bu Sénégal ni ngeen koy gisee ci bi lii mooy Ligue 1 bu Sénégal mu mel ni tey la ñuy daal di boucler maanaam jeexal fukkeelu fan bi mu nag nekk match bu nar a am solo war a dox diggante Casa Sport ak Teungueth FC Casa Sport bi nga xamante ni jamono ji dañoo soxla ngir gën a relancer seen bopp gannaaw ay jafe-jafe yoo xamante ni am nañ ko ci ndorteelu saison bi Teungueth FC naka noonu tamit bëgg a gën a wone seen bopp kon match boobee tey lay doon fu ñeenti waxtu bu teggalee fanweeri simil bu nekk ca Kolda diggante xanaa fàttali leen li nga xam moom mooy résultat yi comme ni ngeen mu nekk lu am solo ci gaawu gi jàmbaar moom moo daanu ci kanamu Linguère ñaari bal ci benn ca a Jaraaf moom moo am ndam wala moom moo tembe kon ñaari bal ci ñaar digganteem ak Stade de Mbour Tembo dox diggante euh, Dakar Sacré-Cœur ak Guédiawaye FC ku nekk benn bal am ci moromam euh, ci dibéer gi euh, bu ñu yeesu kon jàppale ne US Gorée moo am ndam ci kanam US Ouakam foofee ca Stade Iba Mar Diop bu Diamniadio benn Stade Iba Mar Diop bu Ndakaaru kon ca Médina benn bal ci dara Tembo dox diggante AS Pikine ak génération foot kenn dugalul sa morom Sonacos moo am ndam ci kanamu jamono bu Fatick wax ci équipe nationale bu Sénégal wax naa leen ko sànq kon àll tenn bi ñu dëgmal nara yem ak juróom ñett fan ci weeru eh, mi ñu nekk di janvier ñu jongante ak équipe bu Niger mu nar nekk nag jongante xaritoo bu nar a am solo kon jàppale ne kon fédération sénégalaise de football daal dinay génne billetterie yi maanaam eh, ku fekkente ne rek bëgg ngaa dem ci match boobee naka ngay ngir mën a am ab ticket mu nekk nag loo xam am solo daanaka ticket yi moom daanaka jóge na ci ñaari téeméer dem ba ci ëpp juróom te juróom fukki junni mu nekk nag loo xamante ne kon jamono ji jàpp leen ne Euh, kon euh, billetterie yi euh, tey ci àllarba bi lañ ko daal di tàmbali ci àllarba bi kon ci yenn ay bërëb ku ci mel ni kon stade bi Mame Makhtar Diop ci fédération bi ak yeneen bërëb yoo xamante ne bëgg nañ rek ku fu daal di bëgg ticket nga mën faa dem daal di wuti la ko def bu ko defee nag kon altéré bi ñu dëg man ñëpp daal di tase ji foofee ca stade Abdoulaye Wade bu Diamniadio ngir gunge gaynde yi ndax boobee mooy nekk seen mujjanteelu jongante waaye tamit nekk seen njëkkeelu maanaam li nga xam maanaam njëkkeelu yoon muy daal di laata ñu dem ca Coupe d'Afrique bi foofee ca Côte d'Ivoire ndax bu ñu joué ci altine boobee talaata ba la ñuy daal di dem ca ëllëg sa kon dem ca palais présidentiel jël li nga xam moom mooy drapeau national bi dem wutali foofee ca Côte d'Ivoire. mbokk yi ba tey ci wàllum xibaar ñu neen nag li nga xam moom mooy kon euh, Sénégal ci wàllu football jàpp jamono jooje éliminatoire coupe du monde 2020 maanaam U20 ci jigéen yi ñu ngi koy waajal jàpp ne Sénégal quatrième tour bi Gana la mbokk yi loolee la ñuy daal di jaar jëm ci mujjanteelu pàcc yi la jotaayu xibaar li yéen yi xëyee tey ci àllarba bi Abdoulaye Naar mbokk salaamaaleykum tey àllarba yem ak ñaar fukki fan ci maamu koor atum junneek ñeenti téeméer ak ñeent fukk juróom ci gàddaay gi li ëpp ci yi xëy nañ seen xët wu njëkk ndiisoog nday saat ma ak la fa jotogoon a xew xaat lu jëm ci càmbar bàyyi lay ca ndiisoog nday saat ma ñu koy wax contrôle des parrainages tey la ñetteelu fan ba lien fa du ñu xam ne nañ ñëpp xam ne la fa jotogoon a xew jamono ji mbetteel yu bari am na ci naka noonu ñu bari ñàkk nan lajj nan la ko waral yéenekaay bi dikk na ci mbooleem la wax yéen doon ñoom ñëpp dañu tee ñu néew ñoo ci rëcc ñoo ca am la ñu bëgg Alioune Sarr Amidou Deme Jean Baptiste Diouf li mu jàpp ni moo waral lii mi ngi koy ci biir yéenekaay bi njëkk la moo xam moo di ngaraw ci boppam moo am ay jafe-jafe ca lay woo ay nattàngoom yi nekk ci ku jëg ñu jóg jàkkaarloog njaati gi Macky ak doxalin bi mu amee ñu dox ci wax ci ba ak saafara am ci Cheikh Bamba Dièye daanu na ci bàyyile yéenekaay bi moo ñu ko xamal moom Cheikh Bamba Dièye la baax ci ay bàyyileem romb fukki junne ak juróom a ñoom ko waral moo di ba tamit am na lu war a jooyante ci gàttal daal démb benn la kott moo jàll ci jàlle wér mu di professeur Daouda Ndiaye ba tey yéene kaay bi dañoo xam ne lu toll ci fukki la ak benn ba tey ji yóbboogul bokkal di koppar ba nu laaj bépp la mu toll ci fanweeri million yu war a yóbbu ca CDC le témoin quotidien naan ak lu mën a xew daal na ñëpp xam ne lu toll ci ñeen fukki ci ay la wax sampoon doon leen la ko waral moo di seeni bàyyi jaarut yoon jongante tànn njiitu réewum atum sunu moytuwul day ña samp seen dënd jigéen du ko teewee point actu moo ko xam ne la ko waral moo di lii xeeñ jamono ji jëm ci ñoom neexagul ci léegul te ay mbiram ni mu demee bett ñu bari mi ngi ci xët wu njëkk le quotidien sud quotidien moo di ndaamal kajoor Idrissa Seck Idrissa Seck moom la ci fàttali moo jëloon ñaareelu toog ci jongante tànn njiitu ci juróom-ñetti junni ak juróom benn téeméer ci ay ñaata di ay doublon yoo xam ne war na koo weccaxndi bu dee Aliou Mamadou moom candidat bu pur yéenekaay mi ñoo ñaar téeméer ak ñaar dong a weccaxndi l'observateur di ñu xamal ne Idrissa Seck ak lim bi nga xam ne moom la war a weccaxndi ko mu toll ci juróom-ñetti ay ñaata di ay doublon bu ko deful la wax boo xam ne téye nañ la te ay ñaata di ay doublon waral ko dafa fekk ne ay junni junni bàyyile la ñu jëlee ci ñoom ni seeni tur nekkut ci ngaraw yi kon nag jafe-jafe yëpp ci ngaraw yi la nekk yéenekaay bi di ñoo ne lii lépp nag doon na loo xam ne njiital gëm su bopp di Bougane Gueye Dany teeloon na koo wax antenne quotidien xëy jagleel xëtu njëkk Matar Diop Matar Diop ab jàmbur la ca ngombu lan la fare ci APR yéenekaay bi di xam ne mooy dëgg-dëgg Matar Diop ak kañ la ànd ak njaatigi Macky Sall ak ban taxawaay la am ci wetam taxawaay bi mu amee ci at mi nu génn ak ni mu ci ràññe ba tax yéenekaay bi di antenne quotidien tabb ko def ko muy ki gën a ràññeeku ci at mi mboolem lu mas a bokk ci Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul te nekk ci a a nekk dinañ dem jëli ko andi na nataal yooyu mi ngi ci xët bu njëkk 24 yéenekaay yéenekaay bi di ñoo xam nataal yooyu sax mujj nañ ko dugal ci musée des civilisations noires ci teewaayu Amadou Ba directeur Khadim Ngom ay kàddum ci biir yéenekaay bi de xam ne ne Serigne Touba Khadim Rasoul lim ñu fi bàyyal ci ay ndono kenn xamut mu doy te loolu lépp jot na sëkk a def suñu kemtulaay kàttan ba jot ci mbokk yàlla na ñëpp am jàmm jërëjëf a baax moom Abdoulaye Naar yal na yàlla nangu ñaan jaajëfal ko yéen ñi nga xamante yéen yi jàpp ci ba lépp yemb yéen tamit cant ngërëm ñen na leen mbokk yi xibaar yi jeex na yendu leen ak jàmm